wolof nee na woote bi yàlla moo gën bu nit di def defoo kenn deful yàllaay borom kun fa mustawa wolof nee na ku am xel nangu dem telefaan nelaw ku am xel na ànd ak dem wuy ji mustawa la Seex Bamba noon waa réew mi yàlla ma wooteloo ku dib dof na tuug ni xel wa dew fekk mustawa sëriñ bamba tuubal nan la ñëw nan di jaayikum te salaaw dootunu dellu wel nan ci Mustafa ndax ganaar ak nenam yaag siqiya cuuja kulluhum borom gamba baa moom lépp naaw tal nu Mustafa Cheikh Mustafa mi maay mujjisaatam fardil lamiñ wa koy waxal wa kallama rabbul harsi Musa bi Mustafa lu jin njaaga bambay njaag te mooy njiin fa Mustafa ku fay nag jikkoom war naa liggéeyal si Mustafa Cheikh Mustafa gee junganeel waaju ak si duy ku mar bay xondooj yaa tey ma wal fa Mustafa ndoxo mangi ngi wër tuuba bëtum aynu rahmatin waxay nuuri daa dem len deke ki sayqi mustafa ma nga iya salatu ba bi tajdiidi dinihi yërëm ndawnya magal magnya mo moo mustafa serigne bi neena xelam du jóg ci yow ben yon sa cofeelam ci yow nee na du jóg ci yow benn yoon te loolu de mbàkki ñun mën nañ koo seere nee mi ngi sant sëriñ bu mag bi it muy sëriñ Modou Moustapha. ndax moom kat bi fi sëriñ bi jógee ku ne xam na am na yoon wi nu mu war a mel. sëñ Modou Moustapha xam na ko. wane na ko itam.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 di la bàyyeeg Serigne Touba mi tax nga di ko def rek yàlla fay la lu kawe sa njort jërëjëf Mbacke nee na ñëw gi day jékki-jékki bett la rek.